asalaamaaleykum euh, fili asalaamaaleykum yéen téléspectateur u 2STV seen xarit seen doomu ndey moo leen nuyu fii ci marché bi tey nag euh, dañ leen di waxal euh, ci pomme de terre ñu xool lan mooy njëriñam ak pomme de lan la mën ci doomu aadama kon nag ay ca libaas ñu dem kaaw mi salmini ma mi salmini mi salmitike ah. pomme laa bëggoon kilo ñaata la kilo ko 300. loolu lay jar heure bi moo tax dañ ko yokkaat. kon pompiteer dafa yokkaat. waaw dafa yokkaat waaw. saako bi dafa nekk léegi 6000 loolu moo tax day génne 240 boo ko jaayul 300 du mun a génne parce que saako yi day manqué léeg-léeg sax day mottu mais pe ci peese bi la boo ko doon peese détail du mun a génne 25 kilos. léegi euh, bi ban pompiteer la bi ñuy béyee fii la wala bi ñuy importé la. bi importé la Hollande lay jógee. Hollande waaw bu ñu béyee fii moom wax dëgg yàlla moom jëndaguma ko lu tax parce que dafa sew te clients yi bëgguñu pomme de terre bu sew boobu boo jëndee saako bi saako bi dañ ñuy ko solee la moo tax dañuy sol pomme jël bu dijji rancé ko ci gannaaw jël yu sew yi roox ci biir léegi nag yow da ngay sotti saako bi nga yaakaare bu dijji la boo sottee nga jindi 5 kilos rek li dees yëpp nekkee bu sew waaw euh, kon gis ngeen suñu jaaykatu pomme de terre bi lim ñu wax ci pomme de terre yëpp wax nañu variété yi fan lay jóge ñaata lay jar ak euh, naka lañ koy importer ak bi ñuy béyee fii Sénégal gépp loolu yëpp doyul mais pour ñu gën a xamal leen ak pomme de terre ñu seetaan li pomme de terre ci suuf lay sax Solanum tuberosum moo ko jur mu bokk ci xeeti Solanacées ca cordillère des Andes ca Amérique du Sud la fekkee baax meññ fa juróom-ñetti junni at a ngi nii gannaaw si lañ ko dugal biir Europe mujjee nag tasaare mbayam ba ci jamono yi ñoo kaa seetlu ci lu ëpp fanweeri dëkk ci àdduna bi pomme de terre am na vitamine fer potassium protéine glucide bëri na solo lool ci dundal doomi aadama yomb itam bay lool loolu nag tax àdduna bi yépp ñoo kaa jëfandikoo mu bokk ci ñam yi nga xam ne ñoo jiitu donte du pepp pomme de ter suñu sikkalee frites ya diw gaa tax denc ka yomb na ràcc ko ci keesu bant mbaabu plastique teg ko fu lëndëm ndax lumière bi dafa tax muy sax maanaam di mel ni luy meññ soo bañee mu lax itam denc ka ci température bu tollu diggante 8 jàpp 10 degré Celsius benn pomme de terre bu nëb nag mën naa yàq saaku lu nëb dindil sànni ya mu dendaloon lekkal ca na mu gën a gaawee bu saxee dindi ko ak sawe teg fee ci wàllu feem liñ leen indil di soo bëggee rek sa frite di xoyam xoyami tànnal pomme de yu muus yu dëgër xollil daggatal raxasal wis ci nag xorom bu mokk daal di ko ràcc ndox mi yëpp dana yàbbi soo ko saafee sa frite rafet lool bon appétit. waaw bu ñu jëndee pomme de terre ba pare nag comme xam nga jigéenu senegal léegi moom dañoo silbise te jot bariwul ndax njéeg ji ku xëy yaa nga aw sa yoon ut utiloo am dimbale sa alaaj ci biir kër gi.